المهدي عليه السلام المباركة التي رفعها في مثل هذا اليوم قبل قرن وأربعة وأربعين عاما وظل يدعو إلى الله صابرا متحملا متوكلا على الله مستعينا به حتى أتم الرسالة وأتم تربية أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته أيها الحفل الكريم إن خير ما نحدثكم به في هذا المقام الكريم مقتطفات من خطبة سيدنا إمام الله عليه السلام لنتعلم سويا كيف نستقي منها العلم النافع فنطبقه في حياتنا لنكون قريبين إلى الله تعالى mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi yëkki nuyu yu tedd nuyoo yu sell yu nu barkeel jëme ko ci mbooloom yépp waaye di ci jiital ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci jamono ci suñu kanam muy njiitul ahlullaahi di suñu mag di suñu kilifa muy as sayid muhammad muxtaar ibn sayidina Mandione Laye xafizahullah wa raa nu koy ziyaar bu baax a baax di ko ndokkeel ci lii nu bokk ci bis bu tedd bi di feddali ci moom li nga xam ne loolu la suñu mag ya doon def di ko defal seen mag yu baax ya suñu waajur yi itam doon ko def jëmale itam seen mag yu baax ya nuy feddali loolu ci suñu digganteeg moom muy ab jaayante muy suñu kilifa nu nangu ko bu baax a baax nangu gu wér gu sincère waaye nag gu àndul ak benn fanatisme ndax nun xamuñu fanatisme te itim ñi nuy toppit wax dëgg yàlla ay niti yàlla lañu bëgguñu fanatisme nit yu dëggu lañu ñu neex a topp ci seen ginnaaw ay njiit lañu yoo xam ne yàlla defar na leen ñu doon nit njiit yu mat njiit fa lillaahi alhamdu wa shukru dëpp ca Seydina Limaam mu tedd ma alayhi salaatu salaam ba ci tey di moom suñu mag jii fi nekk yàlla na ko fi yàlla yàggal te dolli ko jàmm dolli ko wér dolli ko tawféex di ko gërëm bu baax ci cër bi munu jox ak kóolute gi ak doyloo gi ak jiital gi munu jiital te pakkastanunu benn yoon yàlla na ko yàlla fayal ngeen ji pay may wàcce itam lu mel noonu ci ki nga xam ne moo topp ci moom muy Seydi Mouhamadul Amin ibnu Seydina Ababacar Laye di ko ñaanal loolu nga xam ne moom laa ñaanal magam jooju di suñu mag yàlla na ko ko yàlla defal di ko wàccee ci rakkam ji nga xam ne moom it moo topp ci Seydi Mouhamadul Amin muy Seydi Maam Libaas mu baax mi di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko tawféex ni ma ko ñaanalee sunu mag ju baax jooju di wàccee nuyoo bi itam ci njaboot gi yépp doom yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi topp ci suñu ginnaaw te pakkastaluñu ñu benn yoon fa lillahi alhamdu wa shukru bu ñu ci tuddee rek ñenn mu yóbbaale ña sa des te ñoom ñooy seeni mag yu baax yi nga xam ne ñooy suñu doom muy Seydi Thiaw ibnu Seydina Mahamad Sallaay ak Seydina Laay ibnu Chérif Abdullah ak ki nga xam ne mooy Limaamu Thiaw di doomi Chérif Maam Ibrahima ak seen rakk yëpp ci njabootu Baye Seydi Thiaw njabootu Chérif Seynullah njabootu imam Oud ak mboolem sunu doom yëpp ak sunu jarbaat yëpp di nuyu ahlu bayti Seydina Limaamu Mahdi di leen ñaanal li ma ñaanal seen kilifa yi yal na leen ko yàlla defal muy jàmm ak xéwal ak suturu su sax te yàlla boole nu ko bi jaax Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam di wàccee nuyu bi waaye di ko yaatal bu baax a baax jëmale ko ci mbooleem jullit yépp ci réew mi xaasatan waaye nuyu itam ñi nga xam ne su suñuy mbokk réew lañu nu bokk ak ñoom réew mi bokk kook ñoom li nga xam ne yëpp yàlla boole nañu ko ak ñoom te démb sunu doom ju baax ji Seydina Laay tënk na loolu tënk bu rafet ci kàddu bu pertinent boo xam ne teggal nañu ko ku am ku dudd nag barakallahu fiik yaa Seydi loolu doy na sëkk ci li nga xam ne lépp tënk nañu ak ñi ci réew mi barakallah ñuy nuyu itim di jagleel nuyoo li ma ko baaxee di defee toujours ñi nga xam ne ñooy soppey maam li maamu laay boo gisee ma ni maam li maamu laay dama koy tuddee ci fi leen gën a neex ñoom ci fi nga xam ne ñun itim foofu la ñu ko bokkee ak ñoom maam li maamu laay sel sell mu baax mu yiw mi di maam ci dayo di maam ci ci cër di maam ci ay at mooy ñi nga xam ne bu ñu koy tudda noonu lañu koy tudde dañuy wax naan suñu maam li maam ñu bëgg ko sopp ko duñu ko sàll lu mukk wuuteeg ñi nga xam ne mënuñoo tudd Seydina Limaamu lu dul ci sàll boo xam ne da ngay waaru sax ndax Seydina Limaamu ku mu ñëpp la ci jamono ji ñuy dund amul ku mu dul taxawe ci yow ci jamono ji ñuy tudd taxawaayu maam bu fekkee Seydina ji dafa diis ci yow maam gi moom wax dëgg yàlla te ñun Sénégal dañu yar ci ay teggin ak orma dañu yar ci ñàkk sàllalu kon nag soppay Seydina Limaamu yooyu nga xam ne dañu ko bëgg fonk ko sopp ko te duñu ko sàllalu mukk bu ñu koy tudd dañuy wax suñu maam moo tax ma tuddee ko ci turoo nga xam ne noo ñoo yéen a ko bokk muy seen maam di suñu maam di seen soppe di leen ziyaar di leen ndokkeel yéen soppay Seydina Limaamu yëpp fu ngeen mën a ne ak ku ngeen mën a doon ci àddina di leen ndokkeel ci bés bi di leen ziyaar ci bés bi di leen ñaanal ci barke seen soppe Seydina Limaamu fu ngeen mën a nekk yàlla dolli seen jàmm dolli seen sutura te yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi ah ñun nag placé nañu bu baax a baax pour ñaan jàmm ci réew mi ndax sunu sunu wax ci jàmm du du théorie rek pratiqué nañu jàmm bu baax a baax te dañ ci dëkk dëkk goo xamante ne nattu la sax waaye nu gëm ci yàlla bu baax di ko muñ ngir yàlla ak bëgg jàmm jooju nga xam ne dafa bokk ci mission limaamul mahdi alayhi salaatu salaam te ñun tey ji loolu nekk ci suñu kaw moo tax ma wax ne ñun bu ñu ñaanee jàmm loolu yàlla na jaadu na ñun placé na nu baax pour ñaan jàmm parce que du ay wax rek du ñaan rek waaye ñu ngi koy jëfe ñu ngi koy doxe ñu ngi koy jikkawoo te dëkk dëkk ka nag ndax fii nu dëkk ci ndakaaru gii yàlla seede na ne liñ fiy muñ lu jafe-jafe la ndakaaru xat na ci anam yépp xat ak ndakaaru googu ñëw na ba ci yoof gii tey xat na ci anam yët daanaka woy dëkk yi ñoo mujj nekk way tumuranke yi ñoo mujj mel ni ay way tumuranke mujj mel ni ay gam ndax rekk moytu ak ndax bëgg jàmm ak yaatu ak muñ fépp transformé nañ ko def ko marché fépp def nañ ko marché loolu nag ñenn ci ñoñ dëkk bi ak mbokk yi am nañ ci part de responsabilité waaye itim ah nekk na loo xam ne phénomène bu méttee mi boo xam ne niñ koy muñe bokk na ci ni ñu participer si jàmm ak stabilité réew ak sax économie réew fépp marché la léegi ba fooy jaar da ngay bokkatu rek ak di seet ay teggi ak fooy aw doyatu ci léegi ñu boole ci beneen xeetu marché bu yéeme mooy lan marché yooyu nga xam ne day wëndeelu di wër ci mbedd yi yor ay rajo di wax ca kaw di yërewute li ñuy jaay sept jours sur sept jours sur sept boroom rajo yooyu di yërewute loolu ñuy jaay léeg-léeg sax ci diggante ay minute mën nañoo jàll léegi dem wàññeekuwaat léegi ci noo xam ne wóor na leen ni bu fekkoon am na kuy jënd ca jàll bu jëkk ba diggante cinq minutes yu ñuy wàññeekuwaat di yërëwtewaat rojo bi ak pollution sonor boobu muy indi xam nañ ne diggante boobu ko naroon a jënd di di jënd moins de cinq minutes 24 heures presque sur 24 7 jours sur 7 boo gisee ma cité exemple boobu mooy loolu amaana ba feneen fu mu amoon ñaari fan ñett ñu dégg fa histoire ndax yéen a ngi ñuy tànqal lañuy wax sonal ngeen ñu la jël ngeen waaye dañu koy muñ ngir yàlla ak bëgg jàmm ak participer gi ñuy participer ci jàmm ak stabilité réew mi ak sax économie réew mi ndax ñooñu loolu ñu ngi siy for lu ñu yóbbul seeni njaboot. yàlla nag moo wax ne wa jaal naa baadakum li baadin fitna mu ne maa def ñenn ci yéen ñuy nattu ca ña sa des loolu ñun ñëpp la ko adressé waaye mu toftal te beneen boo wax ne mu ngi ko adressé ñeen ñi mu ne atasbiruun mbaa di ngeen muñ mu ne maa def ñenn ci yéen doon nattu sa ña sa des ñi nga xam ne nag ñoom la nattu bi dal ci ñoom yàlla ne leen a tasbiru ndax di ngeen muñ mbaa di ngeen muñ balaa ñu dinañu muñ kay insha allah yàlla nu yàlla dolli ndimbal dolli nu kattan bu nu mën a dékkoo loolu yépp kon nag nu ngi massawu képp koo xam ne yaa ngi jànkoonteeg ay fitna yaa ngi jànkoonteeg injustice képp koo xam ne yaa ngi jànkoonteeg ñu jalgati la say ax ñu ngi massawu képp kuy jànkoonteeg ci réew mi xasatan waaye ak ci àddina bi yëpp particulièrement suñu mbokki jullit yi ca Palestine mu ngi leen di massawu massawu gi xëy na lu tuuti la waaye nag aw yiw du tuuti te jullit day am ak yëpp ci mbokki jullitam te la ñuy jànkoonteel metti na te mu ngi bëgg a yàgg yàgg na sax yàgg na metti na mu ngi leen di massawu di ko mettitlu di ko naxarlu nag di ñaan yàlla na ko yàlla tegg ci jàmm delloo si jàmm foofu ak ci àddina bi yépp ak fu jullit nekk rek kon ginnaaw loolu nu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy organiser xew-xew bu mag bii nii ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen gërëm di leen sant ci lépp li nga xam ne def nañ ko ci effort ñaanal leen yàlla suñu borom fay leen ko ngeen ji pay bi jaaxi sédd naa ñu ma te ñu yàgg di ko taxawee te mu ànd ak ndimbalal yàlla ki leen jiite di suñu doom Seydina mi amee jiite comité d'organisation bi yoo nekk coordonnateur nuy nuyu bu baax itam di ziar di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe bache ak li nu jànkoonteel yépp ci ay coono ngir defaral nu barab yu sell yi nga xam ne fa la nuy defee jotaay yu tedd yi leen gërëm leen sant leen bu baax baax ñaan leen yàlla mi am fay fayal nu leen ngën ji pay kay seen njiit di sunu doom Seydi Baye Ndiène di suñu xarit di soppee soppe barakallahu fi wa jazahu anna xayra jaza ah di wàcce nuyoo bi nag ci seeni boroom nag ñi moom bés bi ñi nga xam ne ñooy borom bés bi ñu yéen ñii di waa ahlullah maa ngi leen di nuyu maag sama mag yu baax maa ngi leen di nuyu maag sunu mag ju baax ji alxalifa maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di masawu coono dafa am loo xam ne nit ki bu ko defalee boppam jarul nga koy gërëm ki am fulla ak fayda ak personnalité ak détermination ak ngëm yàlla ak dogu defar yëfam ba mu baax nga ñëw na kaan jërëjëf dañ ko naan félicitation félicitation yéen axlulaay félicitation merci beaucoup parce que li ngeen def te defal ko seen bopp ci waajal bés bu tedd bii loolu dëkk bii ñuy wax yoof seede nag lu jiitu ñetti weer ci ginnaaw yéen a ngi dugg yoof ak a génn discrètement di lijjanti fu ngeen dal mu doon loo xam ne vraiment lu extraordinaire jaral leen ngeen fay lu baree bari ngir rek fu ngeen nekk ñaari fan yi ñenn ñi sax attan caa fay lu ñuy fay ci weer ci dëkkuwaay loolu nag mooy fierté bi may wax loolu mooy personnalité ahlullah du yelwaan duñu du ñu ñoom dañu am ak wakkirlu ci yàlla li nga xam ne loolu nu bëgg dinañu góor góorlu sabablu defal ko seen bopp ba mu rafet te noonu la demee kon nag du ñu leen wax jërëjëf dañ leen ci ndokkeel félicité leen si ñaan nag lépp li ngeen ci def yàlla wuutal leen ko ci yeneeni xewul yu bari ak jàmm te ñu yàgg di ko fekke di ko tal di ko man ak rafet fekke te mu doon yokkuk ngëm yokkuk diine waaye doon yokkuk xéewalitim yàlla na ko yàlla boole ba tey itam duñ leen gërëmit ci li ngeen def jëme ko ci lii ñuy sumba pour taaral bërëb bu sell bii bërëb bu sell bi ku ko taaral koo ko taaralal ahlu laay mooy seen jàkk mooy seen jumaa mooy seen lépp fii mooy seen jubluwaay bi gën a tedd ngeen bëgg ko ci seeni xol kon li ngeen fi def li ngeen si defagum te nag mu doon jëf ju am solo defin wa itam gën caa yéeme looloo dañ leen ci félicité di ñaan nag ne loolu moom bu mu dakkati taxawaay boobu bu mu dakkati loolu rek moo koy faj ndax lisaanu xaal boobu dafay wane ne walillaahi xazaa'inu samaawaati wal ard day wane ne da di jëfe ak di jëmmal li yàlla ne yàlla moo moom màng asamaan yeeg suuf yi màng siini xéewal yi ndam bi xéewal yi yi asamaan ak suufi yi yàllaa ko moom keneen moom bu ko keneen moomoon mu metti ndax la ko waral mooy laa tunfiqu ala man inda rasulillah xatta yanfaddu ba tey lisaanu xaal boobu mu ngi fi bu leen jox dara ñi nga xam ne ñoo ànd ak rasulullah koñe leen leen jox leen ko ñeneen ñun ñu ngi fii ci ndakaaru di gis baax di dégg xam di suivre kon bu fekkee am na loo xam ne dafay ndiiroog ne bu leen jox ñi nga xam na ñoo ànd ak rasulullah kon tontu ba ca ña ànd ak rasulullah mooy walillahi xazainu samawati wal ard yàlla rek moom moom màngasi ne asamaan yeeg suuf te nag seen jëf ji ngeen def ci appel bi def ko ci liggéeyub jàmbalaay bi loolu la jëmmal jazakumullahu anna xayra jaza maa ngi nuyu mbokki ahlulaay yi nga xam ne ñu ngi ci àddina bi yépp toog di nu suivre comme ni ko suñu mag ju baax da daan waxe Chérif Al Housseyni yal na yàlla yokki leeram toog ci seeni kër wala seeni liggéeyukaay yor portable yi wala yor ordinateur yi wala yor télévision yi di nu suivre yéen axlulaay yi ci biti yépp maa ngi leen di ziar ci turu xalifa bi ak rakkam yu tedd yi di leen ndokkeel ci bis bi di leen ñaanal yéen itam yàlla dooli leen jàmm dolli leen xewal ca foofa ngeen nekk barakallah mbokk yi kon niñ ko baax niñ ko daan defe rek lañ ko fas yéenee tey fedd li defe ci jukki boo xam ne dañu leen koy jukkil ci xutba sang bi Seydina Limaamu Laay mu tedd ma alayhi salaatu wasalaam waxtaane leen ko ci li nga xam ne rek jàppandi na ci li nga xam ne temps bi maye na ko ñu bëggoon jukkil leen rek ci xutba bi fi muy wax naan wa sayidu haza zaman wa sayidu haza zaman yati wa yuxaalifu alulama fa kafaru bi wa huwa yadcu biddiini walhuda ila allah wa man tabicahu wa saddaqahu yahtad wa kazalika yahlaku man kafara bi sayyidu haza zaman mooy sangub jamono ji tàmbalee ko jamono jooju mu doon waxee parce que dafa joxoñ mu ne haza zaman sangub jamono jii mooy wax bu ngeen fàttala ko suñu jotaay waxtaan wi yàgg ya waxoon naa leen ne moom ci tegginam duy wax ana mu ne ana rek day engage boppam sinon day junja bu dee lu jëm ci leneen loo xam ne dafa waroon a wax ana xam nga mënoon na ne ana sayyidu haza zaman mais moom du waxee noonu ku bari teggin la mais jamono jaak ña jamono jo ëmboon ñëpp xam nañ ne moom mooy sayyidu haza zaman bi ci lu amul werante parce que moom defu ko boppam nit ñi faluñu ko def ko ko yàlla moo ko ko def moo tax man dama bëgg bu may firi sëydu boobu damay bàyyi sang utiliser beneen muraadifam maanaam beneen baat bu mu nirool bokk maanaa muy rais kilifa kilifa parce que sang aada daf ko mujj yàq aaja dafa mujj aada dafa mujj yàq sang moo tax ngay gis ku yaradiku ku xamadi gëm ne sang la aadaa def loolu te sang moom ci ni ñu koy firee yépp moo day dellu ci jikko yu tedd jikko yu màgg day doon ku am ku mag daal kilifa moo tax ma bañ a utilise loolu duma utilise utiliser sàng kilifa laay wax saydu haza zaman kilifa ak jamono ji moo tax suñu sang bu tedd ba Seydina Isa Rouhou Laye woykat ba nekk mat ngab sangoo boroom jamono yaa Seydi Rouhou Laye sang dees koy mat niru sang du juddu du santa sang jikko la melo la dañ koy mat niru moo tax waykat ba wax loolu ka nga xam ne ginnaaw Seydina Limaamu mooy mooy sang gën a tedd ci sang yi Seydina Issa Rouhou Laye ak tedd nga gi li ma leen doon wax sànq si yar ak teggin bi ak ñàkk sàllalu gi saxaaba yi bàyyi yi ñi nga ci xam ne àndandoom yi bàyyi laay yu tedd yi ñi nga ci xam ne sax amaana xaw nañoo maaseeg moom bàyyi rek la leen doon wax bàyyi diwu rek bàyyi diwu rek ñoom ñoo forcé sax sukk si moom jox ko cër boobu ndax xam ne loolu mooy dénkaane Seydina Alima mais buñ ko toppoon bàyyi lay nekk ci ñoom moom mu nekk doom ci ñoom mais xam nga du ànd nag sa doom nekk sa kilifa mu nangu ndax loolu dogal bi yàlla mu nangu nekk kilifa gi waaye continuer di leen wax bàyyi du ñu bàyyi Seydina ku yarul ñi ko xam ñëpp dañuy nettali di yéemu ci yaram ak tegginam moo tax mat nab sang mooy moo doon borom jamono. waaw sang des koy matt niru ko te nag kilifa googu ma bëgg a pour firee ka firiwun wu leen di gën a jege wu ngeen di gën a gaaw a dégg ci saydu haasa zaman googu loolu taxawaayu seydinaa li mu am alayhi salaatu wasalaam nekkinam ak waa jamonoom da ko firi waaw boo delloo ca busraal mu xebbeen Cheikh Muxtaar mu ngi fay wax loolu nee na Seydina Limaamu mbokkam mi mu nekkaloon askanam mi mu nekkaloon dañ daan ñëw ci moom mu di leen fajal mbooleem seeni soxla yi ñu koy indil ma adami imaanihim bihi mu ne ànd nag gëmuñu ko woon ci lii mu woote ne yàllaa ko mu teg ca nag ne walakin jaaluha jaaluhu raisahum gis nga même Cheikh Muxtaar utilisé na muraadifu sayid boobu rais mu ne walakin jaaluhu raisahu mu ne gëmuñu woon lii mu woote ne yàlla moo ko yónni mais ñoo nangul seen bopp gëm ne seen kilifa la moom it mu mat kilifa mu ne moo tax mu ne yattuuna ilayhi fii kulli ma xayyarahum wa dahamam mu ne moo tax ñu daan dellu si si moom ci lépp lu leen jaaxal ak lépp lu dal ci seen kaw jëkki kilifa kilifa googoot moo am diiru moom nekkam ci kaw suuf ku dul yàlla musu ilif moom mooy jox nit ñi cër rek Seydina Limaamu kenn musu ko ilif mooy jox nit ñi cër man di jaay diwu ma nangam diw jox leen cër waaye bu kilifteef taxawee ak jëfi kilifa ak taxawaayu kilifa ñëpp moom lañuy ñu jiital defe naa ne loolu feeñ na ca ngejj ga moom sax diiju na leen utiliser na keroog it baatu sëyit ne leen antum asiyaadi yéen yéen ay samay samay njiit yéen ay samay kilifa comme yéen a ma jàpp ma nekk seen prisonnier yéen a ma yilif kon ci moment bi da leen doon diiju ñu ne mu ne leen du ma leen jiite julli fekk dañ ko dañ ne ko yaa ngi jiite julli mu ne leen du leen jiite julli yéen kay man yéen ma yilif comme maa ngi seeni loxo naka laa leen di jiitee julli ñu ne ko mukk mukk maazallah anta sayyiduna nekk yàlla tere yow yaay suñu sanga yaay suñu kilif ci ci histoire ñëpp xam nañu keroog Seydina Limam moo jiite julli boobu kilifa la beneen exemple ba nga xam ne dem na Gorée ñiñ doon yóbbu Gorée lu luñ leen fa doon yóbbu pour tëj leen pour tëj leen yóbbu nañ ko gore moom nag neewoon na leen bu ngeen noppee gis maawi gaal gii duma Limaamul Mahdi parce que moom saa bu benn defi ñëwee rek day taxaw da kay ëlbati def ko ak waat ne leen nangam lii bu amee wala nangam lii bu amul xam leen ne du ma mu ne leen gaal gi ñu may yab di ma yóbbu bu ngeen noppee gis maaw gaal gi duma ma limaamul mahdi moo taxit gaal ga soriwul de bañ ko yóbbee dañ ko naroon a tëj jéem nañ kaa tëj sax jéem nañ kaa tëj diirëb ñetti fan ñetti fan ya lu ne xew na sana waaye ñetteeli fan ba la sa gën a yéeme euh, ba ñu demee gore maak Seydi Malick Bass nettali nañu lenn ci kéemaan yi fa am ca cellule ba mu ne woon ka fa ne di ko gar loolu waa gore ñu ngi koy nettali ba tey jéem nañ kaa tëj waaye jommi nañu waaru parce que kilifa la boo ko nangoo kilifa la boo ko nanguwul kilifa xam nga am na ñu bon ñu soxor ñoo xam ne dañu am visu toroxal kilifa am na <laughs> am na de yàlla nu yàlla dolli sutura <laughs> dañ ko bëggoon a toroxal ko toroxal Seydina léegi ñetti fan yi lu ne xew na sa nee naa leen nettali nan ko 95 la bañ fa demee ziar maag sëriñ bi léegi tegtali fan ba Cheikh Mokhtar moo ñu ko nettali moo tax man nettali Cheikh Mokhtar laay gën a jottali ci mbooloo yi parce que moom bu ñuy bu ñuy wax saxee vraiment mooy saxe ci fii yàlla na nu ko yàlla fayal Cheikh Mokhtar ak ak doomam jësetam ba al imam Mahmoud Sarif moom nee na ñetteeli fan ba taw bu ànd ak ngelaw lu foor di daaneel mbir yi di daaneel tabax yi nee na am benn waay buy daw naan génn leen sang bi ngeen tëj wala lu gaaw musiba dina leen dal baatu sang bi keroog waajooju moom la utiliser gaaw leen génn sang bi ngeen tëj bu ngeen ko defulee musiba mu bon dina dal ci seen kaw te yàggatu ñu génne ko nekk man nga ñibbi sa kër waaw yow dañ la doon yóbbu doon la essayé tëj léegi ñu génne la ne la ñibbil sa kër xam ngeen ne mënu leen ko toroxal moo tax man leen kenn mu mësu ko ilif tubaab yi ñoo ilifoon ñëpp ku ñu jàpp ginnaaw yàlla kenn mënul si yow daal buñ la bëggee sànq dinañ la sànq buñ la bëggee toroxal dinañ toroxal defuma allusion nag si ñi ñu yóbboog ñu ñu dara déedéet mukk parce que ñi doon liggéeyal lislaam ñëpp yàlla na leen yàlla fay waaye nag limaamul max yu moom mënuñ ci moom dara waaw walan yajal allahu lil kaafirina ala al muminina sabilan yéefar yi mënuñu dara ci way gëm yi rawatina nag yonentab yàlla bu tedd bi seydinaa lii gën a li li li jëmmal kilifte biñ ko génnee xama nuñ def ñu nekk ñibbil sa kër mu ne du ñibbi ndax day xaar ndax taalubeem bi ñu téye tafsir Ablaye Diallo ñu ne ko ko ku dañ ko àtte ba tëj ko ñetti weer mu ne kon moom day toog du dem di fa bàyyi taalibe mu doon beneen exemple yéen a am sang bu gore ba tey beneen tukki sang nga wax moo tax kuñ si tëj léeg-léeg da ngay bëgg rek ñu def benn miracle comme maam baa kër génne ki si saas mais si taalibe moom dafa toog trois trois tëj am na natt yoo xamante ni dafa am durée wala waaw gars yi nag dañ bëgg bu ñu jàppee fii rek nga ñaan bind ko Mame Babacar ñu génn ko léegi Mame jagleem la amul te dafa am natt boo xam ne bu eggul ci àppam mënoo si dara du jeex du jeex te àppam jeexul kon Seydina Limaamu mi nga xam ne yàlla da ko may mu toog góore di xaar taalibeem bu ñu tëj pour mu ci penam pour mu tëdd penam exemple yu bëree ngi si mais bi ma ci tànn mooy gore gi jikki sang gi vraiment doo doo doo doo fecc kóllëre doo bàyyi doo seetaan sa nit ki sonn ndax yow te loolu mu ngi fi ba tey fa lillahi alhamdu léegi ñu ne ko comme yaa bëgg a toog dina la seetal kër gu baax defaral la ko ba mu baax te noonu la ko Cheikh Mokhtar nettali ci Busraal Muxbir nee na kër ga dañ ko leeñ comme moom ni mu bëggee suuf moom suuf si suuf lay toog ci suuf lay dox du sol dàll tedd bu bëgg a dee ñu leeñal ko kër gi ba mu set defaral ko comme këram lay ko defar ko ba mu set defal ko fa la muy aajoo yépp nee nañ surtout ci jumtukaayu yi jaamu yàlla satalaak jàppukaay ak lépp gàddul ka nag nekk diirëb yaa ngi fi ñoo ñoo amee li ngay yor fii yàq sa taalibe yi la fekk kilifa kon nag saydu haza zaman moom moo yey junj ko parce que saydu haza zaman boobu kenn du ko laajte mooy ki kenn mënul ci moom dara ki kenn iliful ku dul yàlla kenn ilifu ko ku dul yàlla kon mbokki jullit yi ginnaaw loolu moom ba mu waxee nag ne saydu haza zaman lan la sa teg yow sang bi yaa nu junj ne saydu haza nu ngi déglu wax nu lu xew ci saydu haza zaman kilifa jamono lu ci xew mu ne yàqi wa yu xaaliful ulama fa kafaru bi mu ne mooy ñëw wuuteeg boroom xam-xam yi ci ay masala ñu weddi ci sababas wuute googu looloot am na loolu am na bu baax moo tax booboot damay jëli rekk la nga xam ne mooy waxi boroom xam-xam boo xam ne sunu boroom xam-xam ñun sunu sunu sunu sëriñ muy al imaam Saxiir daf ko tudd muy Asharaani muy borom téere bi ñu wax kashful xumma imaam Mouhamadou Saxiir bi mu koy tudd dafa wax ne xutbullah saaxibul arfaan ki nga xam ne dafa am xam-xam dajale téere yi boole xam-xamu baatin yàlla may ka kashf moom dafa wax ne wa yuaadihi muqallidatul ulama al mawjuduuna fi zamani xiina yaronahu yazhabu ila xilaafi maa zahaba ilayhi a'immatuhum li i'tiqaadihim anna allaha laa yujidu baada a'immatihim ahadan yaaluuhum fil ali mu ne limaamul mahdi muqallidatul ulamaa yi ñi nga xam ne seen xam-xam yépp mu ngi yam ci li seeni boroom xam-xam andi xam nga da koy gis moo tax bu leen am benn complexe ku ñëw na laan lii lii bokkul ci lislaam moom li borom li li borom xam-xamam xam ak li mu jàngale rek la xam ñooñu mooy muqallidatul ulama yi nga xam ne ñoom la Sha'rani di wax nee na dañuy noonu limaamul mahdi ñu ne ko mu ne ndax dañuy gis ne limaamul mahdi ci ay masala ci ay masala day gisee neneen lu wuute day jàngale neneen lu wuute ak li boroom xam-xam yooyu jàngale te taalubay boroom xam-xam yooyu dañu defoon ne yàlla sàkkul mukk ku sut seeni sëriñ seeni boroom xam-xam ci xam-xam moo tax imaam saxiir yàlla suturaal na ko bu baax a baax kii ni mu waxee ne li mu wax nii dafa dëppoo ak li am ci mbirum Limaamul Mahdi ak ay dëgg ñu bari ci début bi lan lañ noonoo woon Imaam Mahdi lii mu indi kenn xamul kenn xamul lii mu fi indi nii sippi naa ci ay exemple rek mu ne nag ñoom si ñooñu seen xam-xam foofu la yem bu njëkk da nga daan gis boo jàppee ñu naan ah waaye yéen lii ngeen def lii du lii du sunna waay lii du diine lii bi daala comprendre ko moom noonu la boroom xam-xamam gisee ki nga xam ne nag moom la yàlla sàkk mu sut boroom xam-xam yooyu te jàngul moom la yàlla jàngalal boppam te moom mu waxal ko boppam ba mu jàngalee ba mu solee doomam nekk ku la laaj kuy sa maître nekk sama meetar ab baay ku la laaj sa maître ab baay nekk yàlla moo tax ba nga xamante ne comme mbir mi noonu la demee alhamdulilah rabbil alamin moom charaani lan la sa teg mu ne limaamul mahdiyu loolu nga xam ne moom lay indi te mu wuute ak boroom xam-xami jamonoom te mu wuute ci ak boroom xam-xami jamonoom nee na moom yonent bi bu nekkoon ci kaw suuf lu mel ni loola mu àtte lay àtte ci daganal walla xaraam exactement mu ne lan moo tax ndax dafa rot ci xadiis yonent bi wax jëmale ko ci moom mu ne warada fi lxadis annahu alayhi salaam aley salaam maanaam almahdi yaqfu asara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam laa yuxti mooy topp tànku yonent bi sallallahu alayhi wa du ko mooy benn yoon loolu imaam Saxiir wax na ko fa yonent bi sulli summi dàllam wa mu ne fa yonente bi summi dàllam boroom moo ñëw sol peer ba toppat ca tànkam yaqfu asara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam laa yuxti kenn rek la kooku mooy kilifa jamono ba fi jógee ba tey ñu koy annoncé muy kilifa gii ñëw ba mu nee cëpp nag mooy kilifa jamono ba daa ima moom moomu dama sippi ñett rek eh, ñaar sax ci yi nga xam ne wuute woon na ceeg boroom xam-xam yi lay moxtaar jigéen juy solo ba yiw muuru dem jàkk pour julli ji julli farata kañ la fi amoon avant Seydina mu amu fi woon moo ko fi indi ndax loolu bi daala déedéet waaye nag yàlla dimbali na ko mu wéete loolu ay décennies décennies daanaka wooteem mat na siècle loolu ñu soog ko nangu jigéen juy dem jàkk di julli ji limaamul max jo kuréelam ñoo ko jagoo woon wéet ci nag mu doon màdda buñ leen di diingate di ci indi werante ak i wax waaye ñu nekk ci rekk suñu jigéen ñu tedd ñi yiw lool sell lool fonk waxtu lool waa dama jigéen juy dem jàkk di julli ji dina bàyyi doomam sa kaw laal ba muy nelaw déedéet laay loolu mooy tarbitu limaamul wax ne loolu nekk na fi ab diir jàkki laayeen ngay dem ñu berfa lu ñuy wax jàkk jigéen te du ab rideau de du rideau du contreplaqué tabax la Seydina Isa Rouhou Laye ab miir la tabax bu dëgër <laughs> bu kawet jigéen ñi dinañ dugg ci jàkk ji ba génn na doo leen gis doo leen dégg seen parfum du la xeeñ seen dara du la xeeñ kooku mooy mooy mooy kilifa mujjug jamono li moomul max ji mu tedd ma waaw wax leen ma jàkk jigéen fu mu amoon am na léegi wala waaw wala déet jàkk jigéen yaa ngi fépp yal na lu yàlla fayal Seydina Limaamu ñun lislaam yëpp laa wax de laa tamnau ima allahi masajid loolu moo fi jiitu wooteeb Limaamul Mahdi nas boobu moo fi jiitu wooteeb Limaamul Mahdi te dañ te jigéen ñi dañ loon doon ci ku si daan am gan sax bu jóge si biti boo nekk maa ngi julli mu ne ah yéen jigéen jigéen day dem jàkk booba <laughs> mais léegi sedd na waaye nag euh, leçon bi mooy xam nga lan moo waral loolu dogu gi nga xam ne taalibu Seydina Limaamu dogu nañ ko ci pratiquer jàngale yim leen jox jëfe ay santaane ak ak fulla ak fay te boolewuñu ci werante boolewuñu ci wax ju bari boolewuñu ci xuloo boolewuñu ci xeex bàyyi lay newu leen xuloo leen pour défendre ma li ma leen indil déedéet neewuñu xeex leen pour defaraan défendre ma li ma leen indil déedéet jëfe leen ko te sellal te sax donte dafa néew sax leen si beneen misaal bi mooy baatu jigéen buy jóg kaw di tudde yàlla dañ ne woon jigéen <laughs> baatu jigéen awra la <laughs> loolu la ñu waxoon laaj gaaruwaale wu ma nag maa ngi maa ngi xam ne loolu xam nga jàngale moo moo doy waar gaaruwaale wu ma kenn wallaahi mais dañ ne woon baatu jigéen awra la te amul fenn ci alquran fu nit mën a génnee ne baatul jigéen awra la amul amul fenn si sunna fuñ mën a génnee ne baatub jigéen awra amul limaanu max yu indi ko ñuy tudde yàlla waqul na qawlan qawlan maarufa waa léegi waqul na qawlan maarufa da leen ne liyaar leen wala bind leen qul na qawlan maarufan wa zaakirina allaha kasiran wa zaakiraat waa ma ne est-ce que fi mu ne jigéen ñaa ngi tudde yàlla ci kaw fépp ku ko fi indi jigéen ñaa ngi indi ay prix sax ay prix ci xeetu tudde yàlla kon ñaar yooyu rek doy na exemple laay moxtaar wata waxtaan bi xaw na gudd maa ngi jéggalu bàyyil ma tënk ko foofu <laughs> bàyyil ma tënk ko foofu parce que bu ma sañoon yeggali ko boole ci li nga xam ne moom lay wax naan euh, yet on bi diin wal huda ilallah pour rek mu mu baal ma eggali ko sax baal ma eggali waaw bi mu waxee ne yati wa yuxaaliful ulama daf si teg ne yadu bi diin wal huda ilallah diine lay woote muy diine yàlla ji nga xam ne yonente yëpp moom lañ doon woote muy diine yi lislaam ju wér ji nga xam ne mooy diin mooy benn diine ba ca yàlla inna diina inda allahi lislaam diine jooju la woote mu ne wal huda la ak ak njub guy jëme ca yàlla njub guy jëme ca yàlla njub googu ba tey imaam saxiir mu ngi liy wax nee na mooy ki nga xam ne mooy xamal njaam yi ak jub maanaama moo di ca wooteem ba la jaam ñi ca xamee jub ca wooteem ba waaw mu ne mu ne moom mooy xamal nit ñi ak njub maanaam mooy ne wooteem ca la nit ñi di xame ak njub dëgg-dëgg ndax da koy jëmmal moom ñi mu ñi mu ñi mu jubal tim ñi mu yar te jubal leen tim dañuy jëmmal ak njub njub nag lay du njub ma sàmb du jub ma dem du lu nit di toog di ko décréter di di signé ne kii moo jub wala kee juba ji <laughs> njub moom qul inna hudallahi huwal huda benn jub rek am ki ko dogal kenn beneen misaal bi mooy baatu jigéen buy jóg kaw di tudde yàlla dañ ne woon jigéen baatu jigéen awra la <laughs> loolu la ñu ma nag maa ngi maa ngi xam ne loolu xam nga jàngale moo moo doy waar gaaruwaale wu ma kenn wallahi mais dañ ne woon jigéen awra la amul fenn ci alquran ku nit mën a génnee ne baatu jigéen awra la amul amul fenn ci mën a génnee ne baatu jigéen awra la amul limaanu Mahdi yu indi ko ñuy tudd yàlla waqul na qawlan qawlan maarufa waaye léegi waqul na qawlan maarufa da leen ne liyaar leen wala bind leen qul na qawlan maarufan wa zaakiriina allaha kasiran wa zaakiraat waa ma ne est fi mu ne jigéen ñaa ngi tudde yàlla ci kaw fépp ku ko fi indi jigéen ñaa ngi indi ay prix sax ay prix ci xeetu tudd yàlla kon ñaar yooyu rek doy na exemple laay Moxtaar wata waxtaan bi xaw na gudd maa ngi jéggalu bàyyil ma tënk ko foofu <laughs> bàyyil ma tënk ko foofu parce que bu ma sañoon yeggali ko boole ci li nga xam ne moom lay wax naan euh, yadu bi diin wal huda ilallah pour rek mu mu baal ma eggali ko sax baal ma baal ma waaw bi mu waxee ne yati wa yu xaaliful ulama daf si teg ne yadu bi diin wal huda ilallah diine lay woote muy diine yàlla ji nga xam ne yonente yëpp moom lañ doon woote muy diine yi lislaam ju wér ji nga xam ne mooy diin mooy benn diine ba ca yàlla inna diina inda allahi lislaam diine jooju la woote mu ne wal huda ilallah ak ak njub guy jëme ca yàlla njub guy jëme ca yàlla njub googu ba tey imaam saxiir mu ngi liy wax nee na mooy ki nga xam ne mooy xamal njaam yi ak jub maanaama moo di ca wooteem ba la jaam ñi ca ci xame jub ca wooteem ba waaw mu ne mu ne moom mooy xamal nit ñi ak njub maanaama mooy ne wooteem ca la nit ñi di xame ak njub dëgg-dëgg ndax da koy jëmmal moom ñi mu ñi mu ñi mu jubal tim ñi mu yar te jubal dañuy jëmmal ak njub njub nag lay du njub ma sàmba du njub ma dem du lu nit di toog di ko décréter di di signé ne kii moo jub wala kee ji <laughs> njub moom qul inna hudallaahi huwal huda benn jub rek am ki ko dogal kenn